Uh, Assalamu alaikum Gambia. Well, I'm outdoor that I have to wash my hands first with the hand sanitizer. Well, I'm definitely after TS my because it's not safe, you know what I mean? And then this virus have a down real, you know what I mean? Me get you body see wall so and at the same time I'm gonna amal some law for the beautiful fans out there to listen to it. So check it out coronavirus the agni ni DJ from China to anywhere jikoom la moo replay dafa jot pour ñu bokk daal di riite moo gën ñi ñëw you dem like we in a relay you're the reason why people dying like flies eating the souls like the termites téye sa bad but yow doo mun noki nokki ku la gën a jege sori cause we bee gën a sub monkey. Yo man, that's what's up, yeah man. Uzi with a double and fire for flames, man. Check it. Blood tears, hot tears, face frown, how could I smile? Fade fading every single time, cause I always wake up without no dollar see. Life with my dude, that's for T. Mama always complaining, saying I don't do nothing. Big man like me still up in here depending. Dad on my two feet, I should be Daddy say I don't have no use, and I should stop what I used before I get confused and uh, and lose. Not to drink that devil juice. Stop sitting at one place with no dream to chase. Say that money never slept. That I should go and look for it. El suba uti halis. El suba uti halis. Manelolo am darala. salo am solola. الصبا تهالس الصبا تهالس manelolo am darala, paid salo am solora at times I think and cry till my tears dry raise my soul to fly to God up in the sky while oh, look off jar ba my joke them do war even sasuneke I worry do war paske man me lolo mama worry it's time for me to pick up my tools my tools my brain my manpower being no school no job things getting harder now I had to use my manpower. So I had to go and do the hard labor. Because a man without money is a man without honor. If you do some, not only you, but your family, you'll be doing their favor and solve one of their problems. Because if you get paid, good things to you is said ew suba uti halis, ew eh, suba uti xaalis ma ne am darala, la te am solala. la suba uti halis, ew suba uti xaalis ma am darala say it, i am Solala. Respect and tech. That's the reason why I'm doing it there too much. And when I'm home back, gotta give dough to mom, sisters, and then there. They pray for me just to get more back. And then make me feel kinda proud. All my stress I drop. Cause God first help those who walk, walk hard. É o suba uti halis. É o suba uti halis. Manelolo am darala. i am solala. Eu suba uti halis Eu suba uti halis Mane lolo am darala Te itsalu am solala Yo, you know what it is, it's your man Uzi with the double F for flames Reppin' in TV, yo Uzi, out the man. building Uzi flames <laughs>

big, big, big, big respect to it. No, I'm just kinda, not kinda, no, but, I love it like that. <laughs> Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> Okay, Uzi, welcome mm -hmm. to mm-hmm. Sahel Network TV. Yeah. That like that must be the kick. Mm -hmm. Well, léegi nag dañ bëgg a xam Uzi Flames, Uzi Flames. can mm-hmm. we Uzi Flames uh, Let me say sa real tur fan nga dëkk si biir Gambia. waaw man maay juddoo just one, but uh, my maa yaroo Tabokoto. Um, maa ngi uh, tudda Ousmane but artist name baa ngi nekk Uzi Flames you know driving from Ousmane to Uzi am nga Flames bi nekk safara bi because of xadar bi you know I mean and all that so. yow da nga <laughs> ah ragal naa la. <laughs> well Uzi uh, man music career kan nga door sa music career. man maa ngi door suma music career in 2017 yàggut bu baax nga si dropped my first song, but music me one in me since my young, you know what I mean? Because mm-hmm. mm -hmm. my I remember like my first day on stage, me on neck on like my grade one. Mm -hmm. So I'm got and it wasn't my song, but then my like and I'm a lip while I'm awake, mm-hmm. then my prefer rapping, you know what I mean? So it was in me since my wash yoon naa bi léegi ñaata song nga waaw man mun naa wane like um, solo like single song boobu boo xam ne man ko release man kenn rek moo nekk song moo fi perform mm-hmm. and all the other songs are like collabo bari na daal mënuma ko compter sax mm-hmm. kon dang de collabo yeah ah. dama nga jot collabo la yeah may Pistol on the Travelism xam nga ak mm-hmm. Pascal my collabo ñoom Wisto Boy Ndiaye shout to him from TV shout to my people from TV you know what yeah, a, a lot of other artists you know, I mean, like Chair because new one the same crew. Um, yeah. Jamani, the same crew. Malam kana naga bokon si crew way after nga def yo ya, kena wala no fadane. Well, si crew way la ko dore but ah. at the end of the day buma gisena like um why not because man my feel na man ko gom so mm -hmm. madam basi kanam you know ma feel na yeah, why not man luma gom man kena madam defal ko suma bokon. Ana ñu liggéey non e- e non No, no, nekkul ne liggéey sa o mënuñ sa lañu def but comme mm. dafa nekk ne comme xam nga nit ki sa gom gom fu mu mm-hmm. ak yaa ngi ànd ak koo xam ne like gom gomam tolluwut yow foo tollu so soo leen bëggee ànd rek du dem waaw il faut que nga demale sa boppa because yow loo gom ne da nga ko fa mi xam nga mm-hmm. keneen ki mi ngi am leneen lu mu mi ngi gom loolu noonu so su gomut yow loo gom rek mm-hmm. maanaam fil ne comme da nga ko war a bàyyi nga dem ànd ak ñoo comme ni ko gom yee so so far man ma bëggoon la lañ ndax yow da uh, def uh, xam nga nga ne def nga collabo mhm. ndax am na artiste boo xamante ne wéy nga ko parce man léegi moom dama dee gis booy si ñoo ut hype dañ ko bifantoo na artiste <laughs> ah, dafa mujjee bàyyi music so xam nga so ko bëggoon a bif dem naa ba voice ko but at the end of the day mujjee ma ko génnee because dafa bàyyi music so ma just waaye ak ngeen faral keneen waaye faguloo ne yow sa bis bi su borom dina nyuwat. borom. ah, ah su dee dafa ñemee kañ. waaw kon may ñu si tuuti a cappella su nekkee moom mu ngi koo déglu xëy na moom loolu dina ko xiccaat. parce que mm. man soo ma bi fee tey su ma naxaree damaa ñëwaat de. ah fayeeku kay. ah waaw ko ya ne mën ko ne yaa fi nekk ak doom. ba ya rab di ram demuloo fen within sufficient ram Tema sacrifice la def la benn tabaski ram esti dem ak gisul neka nekk di xaar lan la ba legi teretal xam nga. si boppam woon Devil's Work xam nga mu bif foofu noonu jisu leen ST te man maay gis ne gisul leen ST ñu ngi yóbbu musique bi foo xam ne especially ST mu ngi ko foo xam ne xam nga léegi ku nekka imam fu mu ne nekka moo nekka stade xam nga nga def foofu noonu show te mi ngi artiste boobu gën a bif nu mu tudd Easy tea. Oh, easy tea. easy, easy tea. <laughs> Be nah, confident. Wow. no, nah, easy tea lah, easy tea from from ya, from no, no, no, no, no, no, no. Man would man amut rap apa ngara kasih kau suf. Mm-hmm. Even sudah like ya enjoy ya, food rap joge ya, ya ham fomun de joge si aduna ya yeah, man gisuma rap bu ma ragal ci kaw suuf I see. ko sama man jaxal ci confidence boy din digger fit dara ba pare artiste yi léegi man lu ma dee seetlu doo dee wéy dara may king bi may king bi maa moom. si non dañ dee ah. comme comme like for example soo dégloo suma am dara bi man laa wax foofu noonu like blood tears hard tear mm-hmm. uh, face frown how could I smile mm-hmm. fade fading every single time because I always wake up without no dalasi And I'll is a solo song away. Wow, that's my comme man kenn maa ko def waaw loolu laa dunda suma laa I'm going to ah. génne bu ko mère dina de complain and all that I'm nga so ma génne ko yéen am ba affaire si tamit xam nga gëm I'm la soo amee jëm si li ngay def rek to tamit dina la so what are your achievements lan nga comme lan experience depuis boo duggee si wàllum wéy bi depuis 2017 ba 2020 bu ñu nekk Wow, waaw 2017 ba dal. Ah, comme apart from love bu ma nekk di am from the few people ñoo xam ne ñu ma xam xam nga di ma jox courage bi and all that pour ma gën koo def you know what I mean ah, but su ñëwee si achievement daal xanaa mi bi suma xool bu seddale Yeah, <laughs> laa ah, su ma la ne tey yow suñ laa mm-hmm. seetlu si music comme tey mm-hmm. suñ la séntu in the next five years mm-hmm. fan la la nit di expect next five years bi ñëw nii waaw man every day nek suma corner te binda suma relax anytime inspiration bu ñëwé ma binda xam nga di xaar like suma time su jotee so even next year mën nga dégga any where like Ha, fu gars yi dee dem like mën nga ma dégga fofu nonu so dafa depend because job na job bi ba pare hmm. waaw maa ngi ko liggéey nga liggéey bi mbaa du tooga nga tooga bi sàmp rek a def oh, sàmp rek te du toogi benn at sax <laughs> waaw non du toogi benn at mais bi toogi ñaari at yi noonu ah, ñaari at eh, ñu ko tooga teg ko waaw non ñor na ba pare sax <laughs> ñu ngi xaar rek pour yëga rek yëga aussi aussi what are the three things yi nga xamante ne da nga ko dee def mostly every day hmm, three things yi ma dee def mostly every day uh, mooy su ma eewoo suba uh, dem rabaraba wala dem toog si booy yi. rabaraba comme naka xanaa ko am leneen looy def. day jaay bagage yi xam naa. non non non non comme like comme moo nekk loo xam ne comme like yaa ngi ñëw toog nekkuloo di dem job nit ñëw ne ne ah. Man, fi amee war. boo xam comme contrat la you know mean nga dem dóor ko moom after soo leen wàccee mu jola sa baax but it doesn't mean ne comme raba raba rek is something illegal you know ñun suñ raba raba yëpp is loolu la may sama nit apart from way apart from way like like I do little bit of driving you know I mean um, business um, and then rubber rubber that's all <laughs> universal oh universal wow yeah. <laughs> nga kontaan léegi si cappaandaw bi aussi léegi dañ laa laaj comme que nit ku nekk di nga mën a wax ne am na lu ma gën a métti si àdduna si soo wax ñu wat lu la gën a métti soo ko xalaatee sa xol dafay naxari dafay tooy waaw man suma xol daal lu si dee gën a métti mooy everyday like daal bi su ñëwee kër naa miin génnee dépense seen mënuma ko génne naa ko bëgg teggi si moom daf dee oh, waaye ma dee oh. nga ku dem ba am lu la naxari ku am lu la naxari nga war a mun a am lu la nii man su ma la munee laaj te yow lan nga dee xalaat loo xam ne su ko xalaatee dan di smile bi xoolal day bugg sax mu mooy musique Ah. yeah music ma <laughs> non music moom music moom mun na ma def loo anything. Ah. yeah yeah for sure. waaw aussi léegi nag balaa ñuy tëj li nga xamante ne loolu lañ faral di tëjee mooy lébi. léegi waaw léegi yow nag euh, est-ce am nga music video boo xamante ne jot nga koy def souvent. No, non no, non amalu defal ko lay xam nga ñuy def take teg dara ci table waaw waaw so ñu andale 50000 views mais la A review ah fans yi kon ñoko degandor man dina nasi dolli xam nga yow 1000 dollars man dina ci teg 10000 US dollars sana lolu neex na xana jël 50000 views kon xamal nokoy tassare tell a friend to tell a friend kon kon kon may walay like fancy, ak anybody ko xamne ay deglu Wow, Facebook ak YouTube Sahel Network TV naa miin ngeen dem foofu subscribe naa miin view très bien ngeen view nag ngeen view pour vidéo waaw te am nga te am two million la so benn fifty taw <laughs> bi waaw ma caxal leen ah waaye cax boobu dama ragal na nit na ko xam ah, waaw lana am lana am bët te amul nooba te foo dem gis ko

nhiều Aisha là nhiều này theo lớp sẽ biết bye bye